suba sëñ bi Mahmoud wax Habib. nga taxawee ko tey. dama ni boo du tànt bi rek. te sopp kër gi. sa xol sedd na tey. si ñu ngi lay dalal bu baax. dafa mënul ñàkk ndax wo ñun am moom ñu gàmm bi. gàmm bi gàmmu Sëriñ Mansour la waaye gàmmu Sëriñ Abdul Aziz. moo lay yabal jox ñu ndigal. waaye fokk nag ñu def présentation. nga tax ngeen wane ki teew donte la xam ngeen ko waaye ñu nit ñu wan leen ñii la mel man moom ñoo bokk daara alxuraan kër sëriñ maam te la yàlla baaxe ko suuf bi yaayam di xarit boole ñu yar man moom ñu mel noo xam ne yàlla moo ñu ko bind mm-hmm. loolu suñu diggante la baax na moo tax ñoo gisee tey dama ko ni protocole bi yëpp man maa la koy yore tey mooy wane ni ko kon si ñu lay dalal am mbégte ci yow di nuyu kilifa yi ci dañuy yëpp nag kilifa yëpp ngi kenn tas kenn waaye loolu yow lañ koy bàyyee ndax yow yaa am na loolu dama lay wone rek donte la xam nañ rek waaye sama mbégte mooy foog ma wone la ñu daje fi ci daje boo xam ni feeñ na jikko yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax suñu wëjëf suñu bàyyi ci islaamu Ndar dafa junj wax ci من كل وصف حميد الحاجة أبقى على تقدير رجاء البرايا يوم زحمي Beijo, meu Bye. صلى الله عليه وسلم هو يلف وفي القران من تبين قال محمد صلى الله عليه وسلم بو بلدك مؤمن قال محمد so ne yonent yàlla Muhammad mu teel di jikko la kawe na gën na kawe loolu maanaam foofu jikko gën a jàmm fa mu mujjee yonent yàlla Muhammad foofu moom ci doom la foofu la topp dafa mel ni ba doon fas moom moo ñool bu ca kaw fasoo moom moo gën a kawe moo gën a kawe jikko maanaam jikko kawe waay daf ko gën a kawe wa innaka la ala xuluqin azim bind ba rafet na خم خم برافنا تار برافنا معد برافنا يا اللي يعني يكون بينا خمنا وي وإنك لعلى خلق عظيم لول ما تصيرني حاج ما لي وحدي مين كل وصفين حميد حازم أفعل على التقدير وجرب مرة يوم وفحني لكل مولاك تلبح ci lu rafet ci lu sell ci lu yuub ci lu kawe la gën a kawe moom la yàlla def ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy la yow dara ya yow mun taxan danañ ko yàlla fay kon fa tabarakallahu muy gàmm goo xam ni histoire bu am bi sëñ Mansour ay soxla la yoo xam ni monsieur Serigne Mahmoud Mansour tabaxee këram gi ba noppi ndax jigéen yàgg na def taxawaay booba seen ñi ay borom kër mi ngi fi seen càmm mi ngi fi waaye ñoom ñoo jéggi ñu dara ko Seydi El Hadj Malick ñëw na ci Sine bi kon yàlla xéewale nañu defal nañu lu mu defalul kenn kon daañu delloo njukkal Cheikh Seydi Mahmoud Mansour ci këram gii dañ koy ngénte. waaye nitu yàlla yi loo indi jëme ko ci wàllu àdduna ñoom ñu jël ko jëme ko ci wàllu yàlla mu sos ko affaire bi dimanche ba nekk gàmm boobu tegu ci loxo suñu Abdou Aziz Al Amin ñoo ko ñaan ni ko papa may ñu wutu la nga ngay wut koo fi yabal waaye yow ñu wàcc la ci sababu loolu la yebale sëñ Mansour mu ñëw fekk fi kilifa yëpp ni ñu ko waxee di ko ziar di ko dalal di ko masawu di ko ñaanal yàlla tàmbali nañ ko ci bismillahi rahmaani rahiim yàlla yàlla kàttan na la ngay yëgal nuyu suñu rakk Cheikh Omar ak fatabaarakallah nuyu kilifa yi fi nekk yëpp di leen masawu di leen ziar di ci des ñu déglu sëriñ bi dénk ko bàyyi ko lépp di ko ñaanal yàlla wér ak fan bu gudd وياك وجيت وياك وانا مام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.